asalaamaaleykum mbokk yi safo 7TV bisimilah ci xibaar yi digg bëccëg gi ci kàllaame wolof man mbégte janoo ci ak jox si see maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Suzanne di nuyu mbokk yi ñuy teewlu. ay bokk na ci niki démb ndajeeg euh, njiitu réew mi ak ay euh, jëwriñam euh, fële ca palais la république coow li ñeel nag jàkkarloo bu Ousmane Sonko war mën a am ak ñay teewal askan wi ca pencum ndaw réew ma ba léegi nekk coow ñu dalaloon nag kii di Ismaïla Madior Fall nekkoon fi jëwriñ ci régime bi fi weesu moom la mu xamle nag mooy Ousmane Sonko yoon la mu dem jano ak député yi ndax loolee moom la chartu ndey réew mi daal di euh, tëral bokk na itam ci li ñuy waxtaanee wàllu déguerpissement dëjëti gi ñu tàmbali di ko dëjëti ñenn ci ay euh, bërëb euh, fii ci Ndakaaru ak yenn ni euh, gox loolee ba léegi ñu di ko waxtaanee mu mel ni rek waxtaanee nañ ko itam démb ci boobu lépp ndaje ndax Bassirou Diomaye fay di njiitu réew ma daal dinay xamle ne ñi nga xam ne ñoom la ñu dëjëti ci seeni place dinañu taxa dina leen taxaw bu baax a baax ngir gunge leen ci jafe-jafe yi ñu nekkee. wàllu tàggat yaram itam des koy waxtaanee ci bile jotaay ndax tirage coupe d'Afrique bi ñu nar a amal ca atum 2025 daan nañ koy amal euh, niki tey ji si euh, suba gi fële ca Johannesburg euh, Sénégal nag mu daal di nekk ci groupe L bi nga xam ne dina ko bokk ak réew ci mel ni Burkina Faso dañu ki yenn ci faram fàcce gi ci biir bi lay jotaay xibaar mbokk yi li moo nar a gën a fës yaatal gi léegi léegi lay doon. jaajëfal leen bu baax a baax ci teelu bi ànd beeg 7TV déclaration de politique générale bi maanaam jëwriñu du Ousmane Sonko nag jàppal ne ki gàll woon wàllum yoon ci nguur ak ni ci réew ma woon di Macky Sall Ismaïla Madior Fall indi na ci ay leeral. ilimaanu jëwriñ wi ñu fal mu jàkkaarloo ak ñiy teewal askan wi ci pencum ndaw réew ma loolee cosaan la te itam chartu réew mi moom moo ko daldi di tënk ba tax na nag moom mi nga xam ne Ismaïla Madior Fall nekkoon na fi jëwriñ wi ñu dénk wàllu yoon ci régime bi fi weesu bëgg na nag Ousmane Sonko daal di ak boobu lépp cosaan. Sénégal de 1970 ba 2001. kenn prévoir lu woon déclaration provisoire amul woon ci constitution bi pourtant ñi fi nekkoon premier ministre seen déclaration de provisoire alors que constitution bi sax prévoir ko woon et puis déclaration de provisoire dafa nekk loo xamante ne sooy commencé rek da nga ko la d' abord que aada la tradition la waaye tamit gëw ma ne obstacle la ndax te loolu sax pour man du sax coobare règlement intérieur muy fixé benn délai ci constitution bi parce que su constitution bi fixé wul délai pour man règlement intérieur mënul fixé délai premier ministre bi pour man li ñuy wax diggante pouvoir exécutif ak pouvoir législatif règlement intérieur waru ci intervenir règlement intérieur li mu war a intervenir mooy assemblée ci biir lu muy fonctionner lu mu war a doxee loolu la règlement intérieur war a toppatoo mais règlement intérieur warul wax ne yow premier ministre dama lay jox injonction waaye loolu nag warul tax premier tamit du jël considérer tradition républicaine ba pare jël meilleur délai ñëw nag def déclaration de politique ndaxte loolu mooy tradition républicaine bi ñu war respecter député bi di Abdou Bara Dolly Mbacké moom nag ma ngay ñaax ay ñoñam ngir rek ñu fexe nu ñu daal di amale ab section extraordinaire boo xam ne li koy undu moo di dugalaat ci règlement intérieur bi ponk yooyu soxal ilmaanu jorin gi bu ko defee mu mën a ñëw def déclaration de politique générale am. la mu xamle nag mooy ndegam manquement yooyu ñu nemmeeku ci règlement intérieur assemblée nationale moo son ko Sonko Diano ak euh, député yi loole faaw ñu daal di koy dindi su ko defee euh, loolee mu mën a antu. ñu teewlu ay kàddoom. Amadou Ba bi mu koy def boobu loi bi ñëw fi mais dafa sukkandikoon ci constitution bi lan moo tax ñee defaloon lu ëpp cetti yi nga xam moom la con euh, euh, règlement intérieur assemblée nationale wax te kenn mësu koo dégg ñu wax ko kii nga xamante ne règlement intérieur assemblée waxu ko muy Ousmane Sonko mu wax ci loo xamante ne xëy na moom la engagé ci ay faru Facebook wala Twitter ensemble a bëgg koo jël moomale ko seen bopp ba dàq ministre des ni duñ def débat orientation bi loolu teguñu ko si yoon ñun ñoo bokk réew mi ensemble sax dafa war di ci ay euh, loi ak ay règlement asam dafa war a dox ci li nga xam mooy sañ-sañam mais warul dox ci loo xamante ni tamit dafay weddi boppam wala mu manqué loo xamante ni tey day tax ko ñu yàpp ko si loolu moo tax ma woo député yëpp ñu maase incha allah à partir de suba ngir ñu mën a def li nga xam mooy euh, ouverture section extraordinaire demande naa ko parce que loolu ñu ko mën a def mooy waa benn bokk parce que pour nga am ko il faut nga am su 60 députés ñi nga xamante ñoo ko am mooy waa benn bokk ñun amuñu ko kon ñoom rek ñoo mën a sukkandiku pour def demande section extraordinaire wala président de la république laaj ko assemblée ngir ñu def ko suñ ko defee nag obligation la ci ñu def li nga xam mooy procédure urgence càmbar ko nu mu gën a gaawee ngir ñaar loi yooyu mën a jàll ñu jàll si leneen conseil des ministres ni kii démb amal nañ ko ca palais de la république ci kilifteef ñu ci réew mi Bassirou Diomaye Faye kàddu yi nag danañ koy jëmale ak pàcc bu yaatu ñeel opération désencombrement yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci yéen ci gox xaan ci réew mi te itam juri coow. Bassirou Diomaye fay nag daal di dogu gunge ñi nga xam ne ñoom la ñu dëjati ci seeni i place yi ñu doon daani seen doole ngir euh, daanaka euh, jàppale leen ci seen i jafe-jafe bokk ni itam ci la ñu doon waxtaani euh, wala bokk li ñu jël ci ay dogal ñenn ñu daal di leen tabb ku ci mel ni Lansana Gagny a ñu andi ñu Pape ci Gaye mu mel ni njiitu réew mi daal dina dégg yuuxu commerçant yi ak marchand ambulant yi nga xam ni daal dinañ leen dàkkoon ci ay marché yu ni mel ci gox yu bëri ci réew mi. ci conseil des ministres bu ñu amal ca palais de la république Bassirou Diomaye Faye daal na junjaat accompagnement bu secteur informel bi nga xam ni premier ministre am Ousmane Sonko daal na ko siiwaloon foofee ca Colobane muy fàttali ni secteur informel boobee dañ di pàcc bu am solo ci askan wi ba tax na muy sàkk ci nguur gi ñu gën kaa jox gëdd mën a gunge ña cay yëngu ak i jumtukaay ak ay financement maanaam koppar gu nguur gi. njiit réew mi daal dina sàkku itam ci premier ministre mu baral programme bi nga xam ni ca la ñuy jaaree ngir gën a yeesal bu jaayukaay yi mu di Promogem santaane itam ñu gën a dëgëral lëkkaloo bi diggante état mairie yi waaye itam secteur privé bi nekk ci réew mi. ca geneen fànn moom président Bassirou Diomaye Faye daal dina fësal mbébétam mu di amal beneen politique ci wàllum autorail fii ci réew mi. loolee tax mu sant jëwriñ ji ngi dénk wàllu dem ak dikk mu fexe ba sàmm lépp luy moomeelu transport ferroviaire fii ci Sénégal ba noppi daal di tëral ab plan ngir mën koo suuxat ca booram premier ministre daal dina sant jëwriñ yi ngir ñu taxawal lu toll ci juróom-ñetti fukk ak ñetti projet de loi ak lu jege ñetti téeméeri projet de décret ak i projet d' Ousmane Sonko bëgg ñu soppi doxalin bi nga xam ni ñu ngi koy am jëm ci projet de loi yi foofee ca conseil des ministres njiitu réew mi daal na itam defay ay tabu yu yees ñu toll ci daanaka fanweer ak benn bokk na ca Lansana Gagny Sakho mi nga xam ni moo jiite bis ni gi tey conseil d' administration bu agence de promotion des investissements et des grands travaux di APIX SA Pabana Gueye dañuy àddu ba tey jëmale ci opération désencombrement yi nga xam ne joon na coow ci bërd ci yàpp yi bu ñu sukkandikoo ci Biram Mbay Sekk xalam màcc loolu ci liggéeyu mbokk moomee li jàpp ne daal coow lii mënoon na ñàkk coow li mënoon na ñàkk ndax la mu xamle mooy euh, euh, ñii nga xam ne ñoom ñooy maire yi euh, la ñuy liggéey jamono ji muy wàllu désencombrement dafa bokk ci juróom-ñeenti sañ-sañ yoo xam ne nguur gi moo ko daal di dindi ci moom daal di koy jébbal ñu yor gox-goxaat yi waaye ci doxalin wa nag dafa am ay gàllankoor ñu àndi ceeg jëmm mbay ci ay leeral. amali opération de déguerpissement ngir rek xàll mbedd yi bokk na si li nga xam ne. état moo ko jagleel ñi jiite gox yi ak goxaan yi Birame bay Seck xam-xamam màcc ci wàllu décentralisation di dikkaat rek si bile sañ-sañ ñu may maire yi. ci domaine bi ñuy wax nag ci wàllu urbanisme la ak aménagement ak habitat euh, domaine boobu maire am na sañ-sañ ci liñ ko dénk muy joxe autorisation de construire muy def ay lotissement muy def ay euh, euh, ay. ay acte d'urbanisme am na sañ-sañu euh, mbedd mi nga xamante ni moom lañ ko dénk mu di ko saytu sañ-sañ la naam waaye nag am na fu mu yem bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Birame Mbaye Seck muy tudd mbiruma kaaraange gi nga xam ne dañ koy soxla ci opération de des désencombrement yi bu dee dangay def opération bi da nga soxla kaaraange da soxla kon police walla gendarmerie ñu ànd ci ak yow pour sécuriser opération bi sécuriser nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom nga fay fekk parce que li ñuy bañ mooy trouble li ñuy bañ mooy jëya wala loo xamante ni kenn seen souhaité loolu maire donc du ko mën il faut mu ànd ci ak les préfets il faut mu ànd ci ak lu gouverneur ak les ministères de l'intérieur les forces de sécurité ci gis-gisu Birame Mbaye Seck coow lii ñu nemmeeku ci mbirum opération déguerpissement yi jaru ko dama euh, jàpp ne coow bi coowal politique bi moo ci waaye désencombrement yàgg na am dafa nekk nag opération moom tamit dafa comme day laal ay koom-koom lu ci ëpp moo waral mu am coow. ci ay kàddoom nag préfet yi ak maire yi ñoom ñi jiite gox ya goxaan yi lépp lu ñuy sumb dañ see war a ànd nekk benn. lu ñeel wàllu wee tax na ay kilifa daana bawoo ci conseil des collectivités territoriales def nag tukki nemmeeku ci diwaanu Louga xool liggéey bi nga xool ne conseil départemental mu ko fee amal ci wàllu boobu. ginnaaw ba ñu saytoo liggéey bi nag donte gis nañ ci jafe yu bare bare waaye ñoom conseil bi gis nañu ne itam daanaka conseil départemental bu Louga anam yu ñu ko yore daanaka mucc na ayib dañuy dem ca Louga loo fekk fa ndaw la fàtteewal di Gora Mbodj ci ab visite bu ñu doon liggéey bi conseil départemental bu Louga bii di amal kuréel gi di au conseil des collectivités territoriales daal dina rafetlu liggéey bu mucc ay bii conseil départemental di amal département Louga war nañ mën doon dëkk dëkk département royuwaay biir Sénégal je pense loolu en tout cas vraiment jàng nañ fi lu bari ñu félicité bu baax baax président. gannaaw loolu nag ñuy xam ne nii jafe-jafe yi bari na lool. waaye nag il faut ñu jàppale leen. jafe-jafe yi moom mënul ñàkk président bi déjà nee na depuis ans. fanweeri agent ak juróom la am loolu déjà c'est un problème. boo gisee suñu thème bi tamit dañ ko lëkkaloo ak wàllu coopérative xam nga nguur yu bees yi dañoo wax ne dañoo bëgg a développer communes yi ak département yi ci wàllu coopérative ci wàllu napp ci wàllu euh, sàmm ci wàllu aussi mbay. kon ñu moytu département bi dañ sori askan bi. lu ñu war a def mooy nañu jox collectivité territoriale bu ne un milliard. pour que bëgg nañu bëgg nañu développement dëkk bi faw am équilibre am faw am équité équité maanaam mooy lan nit ki nekk ci goo xam. am lépp foofu jarul muy dem Dakar jarul muy dem fen gannaaw bu mu jëlee kàddu gi moom Amadou Mbiri Sylla di njiital conseil départemental bu Louga daal dina rafetlu ñëw délégation bi waaye tamit di ñaan rek ngir ñu yokkal leen ay jumtukaay. li ñu dese daal mooy mooy yi bon fiscalité bi aussi ñu ngi ciy wax war na mën a am. les départements sont li ci des mooy les autorités compétentes dimbali les départements jox leen les moyens qu'il bu nekkoon ab visite bu au conseil des collectivité territoriales doon amal fi si diwaanu Louga ngir càmbal liggéey bi conseil départemental bi lee di amal wante nag luñ ci mën a jàpp rek moo di donte sax am na ay jafe-jafe yu ñuy jànkoonteel conseil départemental bu Louga bi mi ngi amal liggéey bu mucc ayib professeur Abdoulaye lii ak ay ñoom ni ki démb ca dara ju kawe jaar rawatina ca faculté de lettres ak sciences humaines amal na fa ak euh, jàngale wu am solo ñaar ci wàllum euh, politique ak itam jiixi jaaxa yi nga xam ne yenn saa dañ ko cay daal di nemmeeku waaye atang yi xam-xamam dafa wàcc ci nja euh, màcc ci njàngalek taarif lamu mu dal di xamle nag mooy daanaka historien yi am na rôle bu am solo boo xam ne mën nañ ko jouer ci askan wi ñu teewlu ci bu muy janook étudiants yi nekk ci département histoire ci faculté des lettres et sciences humaines professeur Abdoulaye Bathily amal na benn cours magistral ci métier historien li sabab cour bi nag mooy fexe ba ndaw étudiants yi rawatina ñi nga xam ne ñooy def recherche ñu comprendre rôle historien ci biir société bi ak taxawaayam ci tàggat communauté yi. l'histoire est cette science sociale qui histoire nekk na science bi nga xam ne moom mooy tax askan yi xam seenu identité xam yoon bi ñu war a jaar. yoon boo xam ne nag day wundu ñetti jamono mooy li xewoon démb li xew tey ak li war a am suba. permet de préparer l'avenir. boobu nag nekkoon na occasion itam ñu mën a xam solo histoire ci dundini communauté yi ak contribution bi nga xam ne am na ko ngir jële fi crise yi. c'est l'histoire qui permet à travers l'étude des trajectoires collectives histoire nekk na loo xam ne nag moom mooy tax ñu xam bépp élément boo xam ne rek dafa bokk ci doxalinu société yi nekk na nag tànneef bu am solo ci réew bu mel ni Sénégal wala yeneen réewu Afrique yi. important pour le Sénégal important pour l'Afrique. activité bi nag tax na itam ba ñu dut baaraam ci diggante bi dox ci histoire ak politique ak njeexital bi nga xam ne ku ci nekk am na ko ci kaw moroomam. parce que l'histoire. ndaxte histoire dafa am njeexital ci tànneefu politique nag naka noonu tànneefu politique yi dañoo am njeexital ci kaw histoire bu fekkee ne nag danga nekk président séeréer nga ne doo def ak ñi nga xam ne bokkul ak ñoom askana su boobaa la ñuy wax histoire am na njeexital ci tànneefu politique ndaxte da ngaa jël ndogal ngir beddi képp koo xam ne bokkul ak moom askana. professeur Abdoulaye li mu ngi encouragé junniy étudiants yi nga xam ne teewe woon nañ boobule ñu gën farlu ci yoon bi ñu nekk. bu ñu sukkandikoo ci moom histoire mooy discipline bi nga xam ne moom moo ëmb lépp ndaxte moom rek moo laal ci domaine yépp ci boobu jamono kuréel gi ëmb amical yu jàngee ci diwaanu CESTI ñoom itam amaloon nañ ñi koy démb ab leel jàppale ne dikkaat nag ci rek seen i jafe-jafe rawatina nag bu ñu amee seen i jaasa ba noppi ba war a mën a dugg tàmbali liggéey. boobule lël Suzanne doonoon ab porox ndoll ci taskatu xibaar yi ngir ñu daal di fàttali rek ñu yor nguur gi seen taxawaay bi nga xam ne moom moo leen war ci lépp loo xam ne moo mën a ñoŋal kepparuk tasum xibaar daal di fësal itam euh, nees mën a def rek ba ñu gën a suqali yooyu li bërëb bu liggéeykaay ñu ànd ceeg jëna ba Omar Sow taxawaayu organe autorégulation ak organisation de presse yi ses responsabilités professionnelles journalistes ak seeni insertion lii moo nekkoon thème bi nga xamante ne amicale des étudiants du SOSTI na ko choisir si bile panel mu nekk ab occasion si les professionnels de l'information ñëwaat rek si solos convention collective waaye itam daal di rek fàttali responsabilité état bi si régulation secteur bi. Euh, presse bi am na ay problème problème yi ñun ñi nga xamante ne yàlla nattu nañu ñun ne ci per bi presse bi ñu ñoo njëkk xam problème yi mais bi ñu ko xamee ba pare rek euh, courage la suñu bras toog xool dañ ko xam ba pare. wundu benn ndaje bu rëy bu yàgg boo xamante ne dañ doon waxtaane jafe-jafe yi fa am ak naka nañ koy saafara ndaje moomu pare na conclusion yi pare na li ci des nag état la la la la incombé bés bu ko bëggee xam na fu muy jaar pour mën a régler problème yi de façon définitive. il est acteur des médias daal di ñëwaat itam si wàllu modèle économique bi ñu war a amal ngir rek organe de presse yi mën a gis seen bopp bu baax. oui en fait le, le modèle économique il doit être euh, structurant mais surtout. dafa war a nekk modèle économique boo xam ni dafay lalu ci lu dëgër. ngir organe de presse bi mën a dund te itam entreprise bi war na nekk loo xam ne dafay amal njariñ ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéey waaye itam amal njariñ kom koom bi ak développement réew mi. également aussi euh, pour l'économie et pour euh, le développement également du pays. ginnaaw bi ñu leen laajee lu jëm ci dette fiscale bi ñu daal woo acteurs yëpp ñu daal di booloo ngir indi ay solution ci mbir mi. xam nga en fait dafa am ñoo xam ne dañuy jël suñu reporter yi da ko jàll ci kaw patron de presse yi. yaakaar ne que maanaam jafe-jafe yi am yëpp wala lépp lu metti ci presse bi rek patron de presse yi la te fekk na mbir mi euh, maanaam yaram la munoo jël bopp bi bàyyi fa yaram bàyyi fa loxo yi munoo jël loxo yi bàyyi fa tànk yi pour man il faut ñu toog ñu waxtaane ko. waxtaane nañ fa itam lu jëm si mbirum accès à l'information si loolee ñu daal di woo ndaw mi ñu gën a rek jël seeni responsabilité si défi yi nga xamante ne ñoom jàkkaarloo jamono ji rawatina phénomène lanceur d'alerte yi. ni dem ba ci diwaanu wàkk foofee amal nañ ab xew-xew fàttali waaye itam delloo njukkal ki nga xam ne moo fi nekkoon njiital assisté di Eugénie Roqe Aw Ndiaye ay seede daanaka la ñu daal di euh, dëxëñ ci ab euh, document dal di koy euh, fësal nag ña ko def di ñamu doon jàngal waaye itam ñamu doon bokk di liggéeyandoo ñu lu ci Ousmane Sène tey dañ ñëw pour delloo njukkal ki ñuy wax professeur Eugénie Rokhaya Aw xam ngeen ko yéen ñëpp professeur Eugénie Rokhaya Aw journaliste la woon servir na Soleil servir na aussi dans les mouvements politiques seen journaux yi bokkoon na ci euh, aussi doon na professeur euh, au CESTI et il a été aussi directeur du sesti fi nga xam ne foofu lañ tàggat journaliste yi mais ñun li tax ñu def ko fii c'est que Eugénie déroulé na fi ñaari problème programme de formation pour ay xale yu jógee Afrique de l'Ouest ñu leen ay teggat ci ni ngay nawee sa réew ci li ngay xamee sens civique c'est-à-dire naka ngay defee naka ngay comporté woo pour que askan wi mun a roy ci yow ak jël you know jëli lu baax ci yow loolu def nañ ko ci benn projet boo xam ne bii euh, ambassade États-Unis moo ko confié woon war depuis barke démb ba léegi maa ngi recevoir ay hommage mooy hommage yi nga xam ne maa ngi ko doon lire fekki hommage yi nga xam ne def tënk nañ ko ci téere bi donc pour fàttaliku nit ku baax pour fàttaliku koo xam ne kii amoon na njëriñ lool ci dëkkam am d'affaires bi di Abdoulaye Diawo ñu gën koo xamee ci euh, baaba Diawo itok ni ki démb daal nañ ñàkk bakkanam ni ki tey ji sax lañ doon amal levée du corps bi ca euh, Thiès kaay euh, nag la ñu ko dal fasciné jébbal boromam moom mi nga xam ne nag moom moo jiitoon bërëbu liggéeykaay bi ñu duppee International Trade Oil and Commodities moom nag moom moo dal di génn àddina ni ki démb ñu ànd ceeg Pape Malick Thiam génnuk àdduna ak Abdoulaye Diawo doon yëngatu ci mbirum jënd ak jaaya ñu koy woowee Baba Diawo mu nekkoon ci wàllum pétrole tis na ñu bëre doon jiite entreprise bi tudd Trade leen and na ñëpp ñu nga xamante ni ñoo nekk ci wàllum gaz ak pétrole ci wàllu njënd ak jaay ñu ngi koy jooy Baba Diaw Itok nekkoon ci wàllu kooma bokk ci ñu nga xamante ni ñoo ci jàpp fii ci Sénégal mu doon jiite Itok SA taxaw taxawaay bu rafet ci bépp këru liggéeyukaay bu yëngatu ci wàllum pétrole xarañoon loolu ci wàllum yeesal ci wàllum jaay ak nan la ñuy def ba ut xaalis loolu tax ba nga xamante ni am na ñu bëre ñu jël ci mooma ñu teg tey ji seen këru liggéeyukaay ngir di ko Sok xamee woon nañ ko ci taxawaay bu mu amoon tamit ci ñi nga xamante ni ñoo dee sénégalais yu bëree ndaxte moom da leen doon jàppale jàppale fi tamit ki nga xamante ni moo fi nekkoon président di Macky Sall bëggoon réewam di yaatal loolu tax ba nga xamante ni am na ñu bëri ñu doon roy ci moom ñu doon roy ci moom sax daanaka bor bépp la ñu féetee ci biir politique bi ci média yi ci banque yi kenn desul fu nekk amoon na fa ay soppe ñëpp bëggoon ko moom mii mu génn àdduna way wi nag benn la ñëpp ñoo wax ne Baba Diaw toog yéwee noon na doon dimbaliwaate surtout ñi nga xamante ni dañu néew doole te kenn daaw ko yëg di ko ñaanal suuf bu ceskaay sedd ci kawam addu jëmale ci xibaaru tàggat yaram yi Coupe d'Afrique bu des nations atum 2025 Sénégal xam nañ nan la ca fas yéene jonganteel moom nag groupe L moom foofu la bokk Sénégal fas yéene euh, bokk ak Burkina Faso Malawi naka noonu euh, Burundi daañu ci dikkaat yu ñeneen jotaay euh, xibaar ndaje ma niki tey ji la doon am. jaale ci ponk bu mujj dañeel it yéen dana ak jàmm yéen kaay bëri di kat nañ seen xët bu njëkk li nga xam ne kat mooy yeesalaat li nga xam mooy saxaar gi ak lépp loo xam kat mooy ci li nga yi ba na daal mi ko duppee grand chantier de jomaay bu du sukkandikoo ci l'info ba tey le soleil ne daal ci xët mu njëkk gis na kat politique bu yees la daal di bëgg ci Sénégal loolee jaarale ko ci raay yi ak la nga xam ni kat moo ci daal di bokk orientation yi njiit réew mi jox na ko ca conseil des ministres moom gën koo mën bu defee loole carte dem beeg dikk bi gën a ñoŋ ci biir ci biti ci même réew ba tey Bassirou Diomaye Faye bu sënni ko ci réew mi nee na naam carte loolu di sàkk waaye nee daal day daal lunjutu li nga xam ne koppar ci dugal muy commandé benn audit bu nga xam ne activité ci financement ci chemin de fer yi Sénégal ak waa SETER ak Grand Train du Sénégal les témoins nee na ko dëggale nee daal état bi mi ngi tongali li nga xam ne kat mooy soixante-dix ministères ak yi agence ay fonds publics lu ci mel ni Air Sénégal TER ak koppar def ak building administratif ak ndimbal nga xam ne moom lañ jagleele way tas xibaar le libération nee ko dëgg la waa IGE la ñu actionné bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi nee ay exonération fiscale ay contrat minier ak fonds d'aide à la ci wàllum politique Vox Populi daal crise institutionnelle bi nga xam kat ca la ñu raam nar cee jëm wàllu moom dafa déposé projet de loi bi nga xam ne dafa bëgg ñu gën a beesalaat li nga xam mooy règlement intérieur bëgg mooy sowee li nga xam ne mooy assemblée nationale ci ab crise ngir wax ci crise boobee mi nga xam kat lay raam ca ñag ba jëm gis nañ ne li ko mooy bras de fer bi nga xam ne gi beneen dossier mooy téeméeri fan yi nga xam ne kat moom la jomaay nekk ci mim réew gis nañ ne euh, a tàkk ndax gis nañ ne l'observateur ne euh, ay secteur yu bëri ña ngay càmbaraat li euh, nga xam mooy doxalin jomaay ginnaaw ban ko tegee ci bopp réew mi téeméeri fan ba tey am na ko ginnaaw ne kat surtout quotidien ne ko dëgg la téeméeri fan yooyu dëgg la waaye gis nañu kat déguerpissement yi xam ne day dàq ñi nga xam ne ñooy ay marchand ambulant fu ñu teg rek ñu daal euh, gis nañu kat loolee daal ñu bëree bëri ñu ngi koy ñaalu waaye yéen kaay bi nee na ay relogement gis nañu kat loolu du lu bees léegi loo xam ne kat mooy faatu ki nga xam ne mooy euh, Baba Diawo ñu xam ne moom mooy fondateur société trading hydrocarbures bi tuddee ko ITOC le quotidien na ko daal Baba Diawo maanaam li ko wax tax na kat yéen kaay bi dikkaat na ci jaar-jaar bi nga xam ne moom ponkal la ci wàllum hydrocarbures enquête ci wàllu woowu ne daal industrie bi nag moom bu doon la ñàkk na ko ndax dimension exceptionnelle la am ci li nga mooy wàllum xel waaye tam moom milliardaire ne daal kat dundam gépp daal dafa nekkoon ku discret maanaam ko xam kat dafa woyofoon lool ba na kat succès la ci mathématicien bi nga xam ne moom ponkale ci wàllum hydrocarbure bis bi de journée ne kon Baba Diop moom mooy nit ki nga xam ne li nga mooy texte Petersen yi nañ ci kan 2025 négaat ban adversaire gaynde yi moom lañ nar amal loole kat tirage bi nga xam moom lañ xaar tey dina leer ci Copa America choc bi nga xam ne moom lañ xaar mooy diggante Argentine ak Équateur jangeen jëf ñaar fukki simili ak ñeent bottu ci ñaari waxtu mbokki jaare fi buur jotaayu xibaar yi jaajëfaleen bu baax ci teewlu bi ànd beeg 7TV am na mbégte mu rëy janoo ci ak Kajoor Cissé mbégte bu ñu partagé la Suzanne ñu ngi jaajëfal mbokk yi ñu doon teewlu itam daañu gënte ci kanam tuuti xibaar ci tënk ci kàllaama nasaraan ak wolof jaa ngeen jëf